ngeen jot bokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci weeru mag wi weeru Ramadan al weeru al weeru njéggal weeru yërmande weeru goreel ci safara weer woowu tey dem na ak li mu làmb ci ay xiiwal te baaxee nu ko diirub koor gi muy traite boo xam ne nii tey jeexal nañ ko ndax traite boo xam ni loo daan jaaye benn bu ne fukk tey ay téeméeri téeméer nga cay am bénéfice loolu moo di Ramadan loolu moo tax sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni jaaxal na ko lool lu nit di def ci weeru koor ba weeru koor wa jeex muy dese bakkaar nit wërta def loolu ndax min mu kaffiraati sunub ramadan dafay far ay bakkaar kon tey bis bi ci mujj ngi nii bis bi nu koy feete ndax jaamu yàlla yu mag yii buy jeex dañuy feetu ñu tudde ko iidul fitri bi nuy xëyee ci kër yi guddi yooyu yépp dañ ko doon màggal ak di ci jaamu sunu boroom ak di tàggu weer wi muy yaasal bu saaraat yi sëriñ tuuba moo ko tudde woon ni ko yow borom mbég yu bari yi yaa ngi nii di dem aka noo aka noo ngéeju woon nga des fi ba faw aka noo bëggoon nga bañ a tukki ndax li nga am ci ay xiiwal waxuma laa li nga làmboo ci ay guddi yoo xam ne yàlla dala koy fulal guddi gu jàll ga ca topp ëpp ko tuyaaba ba boo féeroo guddi gu mag ga ñuy wooyee laylatul xadri yàlla nee na xayrun min alfi jàpp naa ne nun ñëpp dajo na noog moom ndax naa fi leen weer bi ba àgg te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ni man xaama leylata alxadri imaanan waxtisaaban xufira lahu ma taxaddama min dambi ku yàlla baaxe nga naafile laylatul xadri yàlla deseetul ci saw yaram benn bakkaar bu mu effacé te xam ngeen nit ku amul bakkaar mooy kii dem na ndax bàkkaar rekk mooy tooñ jaam bi ba yóbbu ko fu ko neexul kon bu ñu la ko faralee la muy tekki mooy dinga nga dem aljanna yal nan fa yàlla yóbbu muy loo xam ni koor bégukaay la am na benn xasiida boo xam ni Sëriñ Tuubaa daf koo taalifoon tudde ko bégalum ñi woor mbégum ñi woor yaakaar naa ne euh, gànnaar la ko defe woon te mag ña siyaare ko naaj wa tàng ni gànnaar tànge mu boole ce naaj wu tàng mag ña boole ko seen koor ga ba ñëw di siyaare Sëriñ Tuuba ci désert bi mu ni leen metti na lool waaye maa ngi leen di bégal ni bis bu ngeen taxawee fi seen kanamu boroom ba mu di leen fay lii ngeen def wooral ko weeram wii di ngeen fàtte mitit yi di ngeen fàtte coono yi rawatina bu leen dee dugal ca bunt ba mu leen jagleel bunt bu ñuy woyee rayaan muy bunt boo xam ni mbakar feggu la ñu war rekk cee dugg sëriñ Tuubaa wax na ko ci masaalikul jinaan nee na li anna fil jannati baaban laa yaqib fiihi siwa ahli siyaami faxtasib ajjana am na bunt boo xam ni kenn du fa jaar ku dul ki wooroon kon loolu doy na mbégte yonent bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam ni li saa'imi farxataani farxatun indal alfutuur wa farxatun indal liqaa'i rabbi woorkat bi dana am ñaari mbégte benn bi mooy bi mu dogee tey dog nanu mbégte mu rëy la yendoo miskin dañoo bëgg bala ngaa xëyee sa kër feesal seeni gafaka ba ñu ànd ak yow mbégte mi muy tudde ko muurum koor mu ni beneen mbégte mi yow ma nalxal ba yow ma rab bi ak bis ba nuy dajeeg su muy woo woorkat yi ni leen kaay leen nee na ñaari mbégte yooyu ku woor doo ci mucc di ko am kon nag mbokk yi eh, weer angoog jeex na tey noo ngi def li koy tëj muy ñaare rakka yoo xam ne incha allah taala ci kanam imaam danu ko danañu ko jiite muy ñaare rakka yuy am ay kàbbar juróom-ñaari kàbbar ci bu njëkk bi ak juróomi kàbbar ci bu ñaareel bi boo ci waññaalewul bi nga jógaale loolu moom la ñuy tuddee rakaatal iidi bu noppee imaam dina def benn xutba boo xam ni daf ciy leeral jaamu yàlla yi li nu war a continuer ndax koor dañ ci doon jàng rek jàngal nañu ay bind yu baree bari jàngal nañu muñ ndax romb nañu lu nu moom muy sunu ñam muy sunu naan muy sunu njaboot fanweeri fan mbaa lu ko lu tegut lu néew kenn ci yéen ñimewu ko laal kon man ngaa muñ kat yow mi man a muñ ci sa biir néeg yaag yàlla rek nga mën a muñ ñam wii nga soxla lool mën a muñ ndox mu sedd mii nga soxla lool bind boobu ma la jàngal daf lay mokkal boo ko mokkalee boo fa jógee wallaahi dootoo laal lu yàlla tere dootoo laal lu yàlla araamal ndax bàyyi wan nga lu dagan ba ñëw kon nag ku bàyyi lu dagan war ngaa xam ni du laal lu xaraam bind boobu lañ doon jàngal koor jàngal nanu buntu dimbalante bu nu wooree ba ngoon ba nu tàmbalee koor geeg léegi kenn ku ne ci nun ma ngay jéem a góorgóorlu jéem a jëkkante jéem a def lu baax ci miskin yi ak sa kem kàttan ñi am sax doomu tàndarma ñoo ngi koy séddoo kañu dendal ñi am kaasu kafe ñoo ngi koy séddoo kañu dendal ñi am ñaari dërëm ñoo ngi koy xaaj di ko jox mbokk mi loolu yëpp doon nañ ko def ci weeru koor muy jàng tabe nanu wéeg moom kon bind yooyu bu wéyee dañuy doon nit ñu baax ba faw te boroom xam-xam yi dañoo wax ni bokk na ci màndarga yi wane ne sa koor gi yàlla nongu na ko mooy jikko yu baax yi nga yoroon ci koor boo woree it wéeg ko moom boo woree dangay ngay wéeg jikko yooyu loolu mooy wane ni mokkal ngi bind yi la yàlla doon jàngal rawatina koorug ren gi nga xam ne yàlla danoo boole defal nu ci am nattu nattu feebar yaakaar naa du wuute mukk du wuute mukk ak koor gu mag ga nga xam ni saxaaba yi wooroon nañ ko ci ginnaaw Moustapha sallallahu alayhi wa woor ba ngoon woor ba digg cëg naaj wi tàng xeer yi tàng yow ma badrinil kubra mu ànd ak xeex jaasi yi fett yi di leen jóge wet gu nekk te ñu woor ramadaanul mubaarak subhaanallah xam ngeen ni kon feebar bii am te dajeeg weeru koor mbégteem ku xam yàlla la ku xam yàlla da ciy bég xam ne ndekete cër ba waa Badar amoon ci mettik seen xeex ba ak mettik euh, la leen daloon tey jii cofal nañu nu ca jox nu ko tey jii muy bis boo xam ni muy weer woo xam ni xiif nañu ci mar nañu ci yàlla nattu nan ci wala nabluwannakum bi cheyin min al xawfi wal juuci wa naqsin min al amwaali wal anfusi wa samaraat bokk yi yàlla nattu nanu jox nanu tiitaange ñépp tiit nañu ci feebar bi fi am waaye wàññi na itam wërsëg yi ku daan liggéey te liggéeyatoo sa wërsëg wàññeeku na wàññi na itam meññent yi la nga daan roose mënatoo faa dem wàññiku na wàññi na itam bakkan yi ñi ci faatu ak wàññiku bakkan ya yàlla ni lu ngeen war a def ci loolu wa bashiri sabirin ña ko muñ yàlla nee na nañu kontaan te xam ne dinaa leen fay ci loolu moo taxoon nitu yàlla yi sëriñ Touba wax na ko ci uqal bu kaawo nee na nitu yàlla yi bu ñu dundee ab jamono boo xam ni dara méttiwul ci seen yaram dara laalul seen njaboot dara laalul seen alal ni nu ko bëggee nee na loolu bu dee nitu yàlla day tiit day tiit ni mbaadu man li ma doon defal yàlla kus niiw yàlla dama ko nar a faye tey tey jàq tiit nun nag bu nu dara méttee dañuy tiit te xamuloo ni li lay metti yàlla dana ciy dindili li li lay metti yàlla dana ci yëkkatil ay xiiwal loolu moo tax gaay yu baax ya bu leen dara masaa metti dañuy kontaan lool bég lool xam ni ñoo nga ca yoon wa wala nabluwannakum ataa na'lama almujahidina minkum wassabirin yàlla nee na danaa leen teg lu metti de waaye ci biir lu metti li ma leen di teg ci laay xàmmee samay gaay ci laay xàmmee ñi la jëm si ci man ndax natt yi du dara ab téeñ képp la nit ki nag bu bëggee yanu day wut ab téeñ teg ci boppam waaye koo xam ne téeñ bi bu ñëwee mu bas ko kooku du yanu kon nattu ab yan ngay xaar dangay ngay xaar a yanu gis nga Mawlaana Cheikhul Xadim bi ko yàlla tegee nattoom bi ñu ko teg génn ko ci biir këram génn ko ci biir njabootam génn ko ci biir réewam génn ko ci boroom xam-xam yu bari yi mu dajale woon génn ko ci kaggu gu gi mu defaroon mu ni xusuuri xalat wal ahlu anni tafarraqat li matxi alladi anhul madi u xasiru njënd yi weet na tey de téere yi ma namoon yónni ma ndumbe mbàkki gànnaar mu dajaleel ma ci lu baree bari mu fees sama tabax yi génn nañu yooyu njaboot gi ma daja lool ñu mokkal tiiri yi lool ma marga ànd ak ñoom tasaare xam-xam génn nañ ma ci biir loolu lii nag nee na bis bu metti la waaye gis ngeen bis bu metti boobu nee na moo ma daqal ci bis yi ba buy woote cant ci bis boobu la koy woote kii de wuute naag nun nun de ci xiiwal gu neex ci sunu yaram mbaa ko ak alal mbaa yokkuteeg njaboot ci lañu daan feete waaye koo xam ne mitit ci lay feete kooku moo xam yàlla xam na ne yàlla téeñal na ko te ku yàlla téeñal dana ko yen kon weeru koor wii lii nu ci dajeel ñu di ko wooyee corona lañ koy wax muy feebar bu daj àddina bi te ñu ne Sénégal jël nañ ci seen wàll nattu la de waaye boo ko muñee wallahi di nga daje xiiwal bul ko tawat bul ko jàmbat nattu rekk la moom it ab jàngalekat la ab jàngalekat la jàngal na réew yi leçon yoo xam ne bu nu ko fàtte bu nu ko fàttee kañ nga dégg ñu ne rey na sàngam diirub ba loolu amul kon kay waay waa sécurité am nañu leçon bu war a mokk kañ nga gën a dégg malaat boo xam ni day dem ñu di ko réciter ngir ñàkk lu mu fajoo tey dañ koy jëli ca biir këram di ko neexal di yenuy indi mbokk mi yow médecin bi jàng nga leçon de kon leson boobu na continuer yow kañ lañu gën a dégg gëj a dégg ku feebar amul lu mu lekk gars yi yenu saakuy ceeb yi di yenu dëwlin yi di leen yëpp ci kër yi mbokk mi leçon tab boobu nga jàng te corona jàngal la ko bul ko fàtteeti ana 4-4 ba daan dox ci biir Touba di toj bitig yi kenn déggatu ko kookoo ko fi jëlee kon nag la tax mu jóge fi sécurité booba na jàng ne am na leçon bu mag bu fi jógee bu mu nelawati noonu mu ñàkkee woon nelaw na ko continuer réew mi nekk ci sécurité ndekete yoo mën na noo am sécurité ndekete yoo mën na noo faju ndekete yoo mën na noo dundal miskiin mbokk mi ndax noo ngi jànge leçon yooyu nanu jànge leçon yi natt bu ñëw rek am na lu mu àndal lu mu àndal xiiwal la xiiwal googu nag nan ko xiiwloo nan ko xiiwloo bu nu ko xiiwloo rek dananu am jàmm tey dananu am jàmm ëllëg euh, mbokki jullit yi bisub tey bisub jéggalante la bisub jéggulu la itam bisub waaru la bisu waaru la bis boo xam ne dañ ciy waaroo xoolal ni jaam yi dajaloo fii dara du seen yitte lu dul yàlla bokk fenn fu ñu jëm ñoom ñëpp bokk lenn lu ñuy xaar bu lool a ñëwee ñëpp di ko defandoo mbokk mi ndax xam nga loolu lu muy tekki ma nga lay fàttali yowmal maasar bisub yowmal xiyaam bu yàlla dekkalee jaam yi kenn ku nekk ni pullet ci bàmmeelam taxaw ku ne di xool lenn ka diglu lenn di diglu kàddu yàlla ba xam lu muy def ak noonu di diglu ndigalul yàlla ba xam lan la digal tey ñëpp a ngi ne xaram leen rek la ñuy diglu yàllaa ngi nuy jàngal ni ardul mahsar noonu ngeen di mel da ngeen fa ni cell kenn du wax kenn du yëngutu kenn du tal kenn ku nekk toog di diglu di xaar ba xam lu muy mujje nu muy mujje nu muy mujje kenn ku ne génn sa bàmmeel mel na nga meloon ba ñu lay jur soxna Aïsa radiyallahu anha yonent bi daa nettali xisa bii ma nettali soxna si ni ko waaw bu keroogee naka la awra yi mu ni dees koy tal dees koy tal nit ñu tëju ci néeg néeg bay lakk ku nekk sànni lu da loo bañ mu lakk ndax kooka dees dafa xool awra kenn du ko xool ku ne bëgg a génn bi rek ngay def ak foo mën a teg sa bopp tiitaange jooju gaa yooyu am moom la ñuy am yow ma yafirul maru min axihi bis boobee nag moom la ñuy jàngal tey ci yar bii nu am moom la jàngal tey ci ndigal lii nu am ndax bokk yi yëngeen ni mën ngeen a topp ndigal wallahi mën na noo topp ndigal ndekete yoo mën na noo bàyyi yàlla tere mbokk yi feebar boobu ma doon wax gan googu xanaa du moo leen digal ngeen ngaawu yéen ñëpp ne leen axa kenn moyu ko ndekete woo man ngeen a def li yàlla digle te ku de ku fi jógee te defoo li yàlla digle yàlla dina la ne danga ma yeb waaye ba ma yebalee njaam su mu ne la ŋaawul ŋaaw nga mu ne la teel a la tëdd teel ngaa tëdd mun la bul nuyoo nuyoowoo waaye lii ndigal nga di ko def di magum jëmm te dara taxul lu dul njaam soo xam ne neeñu la mënoo ko sax a gis mënoo ko sax a gis xamoo fu mu nekk waaw ponkal mi nga xam ne xalaqal arda wa samaa ci bind asamaan siinu tiim bindu suuf siinu teg lii du ngeen waaroo waay xool leen kii bâtiment bu mag bii ak diisaayam bii fi ngeen ko teg boo gasee ñaari mètre dem cim ndox ndax ndox waroon naa àttan lii waay xam ngeen yàllaa ko téye de yàlla moomu téye loolu téye waale nu te bu ko neexoon tey mu ne suuf demal ndox wannal ma ñi mu def ko waaw kooku kon wëree su ko ragala